président de la république ak nguur gi nga xam ne moom la yore nit ñi dañ koo am dañ koo teg fi ngir anam yii benn anam bi ci jiitu muy wàllu justice ñu respecté ko ci tey bu benn nit ne xëy dugg ci réew mi di dajale ay rebel ñu jógee Gàmbi ñu jógee Biñoon ñu jógee fu ne ñu wàcc ci dëkku Seexul Xadim bii nga xam ne Sëriñ Tuubaa da ko tànn liggéey ko suñu borom bam ba jox ko ñu egg ci zéro mètre sama bureau bii bureau bi ci topp bi ci toppaat ab supermarché la photo Cheikh Ahmadou bamb bu mag moo nekkoon ci buntu ba ab murit jàpp naa ne wala ku dëkk Touba amut fitu dugg ci biir supermarché di xotti photo Sëñ Touba déedéet kon ña ko def ña ko def ñan la gëm naa gëm-gëm bi ma am nga xam ne Sëñ Touba ma gën a lu man di doon am murit wala ab sénégalais ci gëm-gëmam wërtu dugg ci supermarché fekk fa photo Serigne Touba di ko xotti ci digg ba kon am na leneen lu xew lim xew nag ñëpp xam na ne murid yi ay fanatisme moom am nañ ay gëm-gëm lim bëgg a liggéey ci réew mi wan bu jotoon ci réew mi màggale gàmmu dana am ay affaire sëriñ dañ koy dindi déglu daal léegi xuma maître nan la mu ne bu toogee nit duutu jaamu ni moromam nit duutu def nangam lan lay wooyee jaamu jaamu kenn lañ koy def muy suñu borom tabaaraka wa taala wax na ne moom ci jëmmi boppam boo demee article cinq ci li nga xam ne mooy statut parti euh, passif wax nañ fa lu mel noonu kon ban xalaat la Ousmane Sonko am ci réew mi ak ñan ñoo ne ci gannaaw ndax gëm naa ne sëriñ sii fi ne seen maam liggéey ko fii xeex ak tubaab yi buñ xëyee ñu gont bu tubaab yi gontee ñu xëy ba tey jii diine lislaam tasaaroo fii ñu tasaaroo ñu toog fii di dundal loolu gëm naa ne ku jàpp ne yow ñooñu jaamu dañ leen di jaamu déedéet jaamu yàlla rek ko yàlla yelloo waaye lifi fi maam yi liggéey loolu la bëgg a mu teg ci yeneen anam goo xam ne ñëpp xam na ne sëriñ Touba maam seex Cheikh Rafal tey lampa nga ne ñëpp di ko seen bay Fall yi ndigal rek la ñu wéyee mu wàññi ko ñëw gisul sëñ bi gisul kenn di dem ci Baye Fall ngir bëgg a jaxas yoonu mu murit nit ñi nan bàyyi xel. tey bu ñu demee bay tudd Serigne tubaa Cheikh Rafal moo ko wanee kon ñooñu ci seen jëmmi boppam gëmuñu ku du Sëñ Touba waaye jaxas rek ko taxaw di yow loolu dana la fi mën a jàngal lu bari yow nu ngoo gis Sëñ Muntaxa ñemoo nu ngoo dem Poroxaan wàññi ko yow ci sa jëmmi boppam nga wàññi ko yow ci sa jëmmi boppam bañ màggal bañ gàmm yow ci sa jëmmi boppam nga ñëw Touba bii mooy ñaareelu yoon muy soog a dugg ci barabu Sëñ Touba ba mu doonee Ousmane Sonko ba léegi ñaata yoon la ñëw Touba. kon nit ñi nan bàyyi xel ki ni waxal mooy kan nit ñi nan bàyyi xel bu ñu demee ba li gën a seer ci ñun muy màggalu sëriñ Touba màggaluñu sëriñ Touba de yàlla la digle ñu màggal ko na leer mu tuddee ko màggal gi ñu dem ba am mitin ñu laan màggal gi la diis la ana murid yi ana gëm-gëm yi ana pas-pas yi Macky Sall mi ma àndal barki Seexul Xadim jërul ma am miti na wala dara ma koy tudd di ko tudd naan Sëñ Tuubaa la parce que am naa gëm-gëm am naa pas-pas kon lan